bëgg ñu jàppale ñu ñu jóg suñu bopp parce que sénégalais yoo xam ne dañuy employé ay parce que ñu ngi employé ay sénégalais nag wax dëgg yàlla ñoom bu ñu liggéeyee ba weer dee war na leen a mën a jàppale la ñu war ak ñoom ñu def ko te loolu dem nañu ba ci biir gis ni nañ daan gagné ci 1984 ba léegi ba essence di jar ñeent fukki dërëm ba léegi moom la ñu yor moom la ñu jox salaire yi augmenté na charge yi augmenté na électricité bi augmenté na lépp augmenté na ba nga xam ni ma mënatuñu dem léegi li ñu bëggoon moo ñu yokkal ñu ko marge boobu nga xam ni mooy maanaam li ñuy compal li ñu compal nañ ko yokk yokk bi du dara de waxu ñu yokk essence bi waxuñu ñu yokk dara mais mën nañ ñu yokkal ca essence bi du yokk. station yi nag jamono ji ñu toll lii di lempo gi sonal na leen lool bu ñu dégloo ñi nga xam ne ñoom ñooy gérant yi jàpp nañu ne dañ coo yokk yokk goo xam ne ñoom mënatuñ ci dara. danañ na ñàkk informé parce que ñun. dañu yëkkati ci ñu mag ñi ñu ponkol ñi ñi nga xam ne fi mu ne dañ ni ñooy def ay milliards te ñun defuñu ñu ne ay ndongo lañu nit moo ubbi place def fa enseignant am def fa léppam nit nii lay doxee bon code bu bees bi euh, gis nañu droit d'enregistrement yi wàccee dañ ko def fa 2 pour cent wax dëgg yàlla loolu moom macha allah mais ñun dugal nañu ba tey ci ñu mag ñi dañu bëgg nag ñu wàccee ñu yóbbu ñu ci petite et moyenne entreprise la ñuy gagné ñu imposé ñu ci. ñoom gérant station yi nag jaxle nañu loolu ñu ci bëri toll nañ ci juróom-ñett def nañu dépôt de bilan ci at bi ñu nekk ba tax ne ñoom jàpp nañu ne bu ci nguur gi waxut ñoom danañu tëj seeni station waaw mënatuñoo dem loolu moom dëgg gu wér la mënatuñoo dem parce que wax dëgg yàlla ñaari dërëm ak 15 ci courant bi ni mu chéré ca ba gasoil bi di jar juróom fukk ba tey ji ñu nekk ci ñaari dërëm ak fiftin mënatuñoo dem suñu collègue yaa ngi tëj te koo ci wax mun a la lii nga xamante ne maanaam mooy charge réunion yi nga xamante ne moom la ñuy def hebdomadairement mënatuñ ko l'état na réagir par rapport à ça yokkal ñu vingt yokkal ñu vingt francs wala ñu tëj suñuy station ata ngi nii ba ñu regroupé wu ci association ñoom gérants yi dañoo bëgg ñi nga xam ne ñoom ñooy trois majors yi ñu génn ci seen loxo ba mu set ngir liggéey gi ñuy liggéey ñu mën cee dund ñi amee ay lijaasa lijaasa yi te ay te génn ci maanaam école boobu di tàggat ñi yëngu ci wàllu wér-gu-yaram muy ENDSS ah, ñoom nag seen diplômé yooyu ŋàññ nañu doxalin bi gouvernement bi def ah, ci ni mu leen nattalee ci recrutement yi dafa gis ni daal lim bu yées la leen natal ñaawlu nañ itam ni nga xam ne noonu la ñuy tànnee ñenn ñi ci quartier yi waaye itam ñàkk gi nga xam ni ñenn ñi liggéey ci wàllu wér-gu-yaram amuñu ko xam-xam ba ca war loolu yëpp doon na seen tawat Gabriel Diatta lii la ci dénk Nafissatou Sylla ak Alié Mbaye ñu lu ko. dafa am yoo xam ne ñu ngi koy gis ah euh, publier nañ liste pour recrutement yi mu am juróomi junni ak lu teg ñoo xam ne lañ la war a jël mais soo xoolee si wàllu socio sanitaire yi quatre virgule quatre ñaar fukk boo jël ñeent la lañ si jël léegi ñu ne Sénégal dañoo bëgg wér yaram bu mucc ay ñu ne Sénégal dañoo bëgg nit ñi faju ñu ne Sénégal dañoo bëgg nit ñi am. wér-gu-yaram bu war si ñoom mais loolu mënul am ak ñoom lu ñu joxe nii mënul am bu ñu nax sénégalais bu ñu nax sénégalais yi président mu ngi wax affaire couverture maladie universelle loolu mënul nekk pour nga def loolu il faut nga am ñu compétent am personel qualifié te dañoo gis tey hôpitaux yi da ngay ne fees na del ak nit mais amul personnel qualifié léegi nag su ñu waayee personnel qualifié mu ñoo weesu parce que ñun dañoo jongante ba pare soo a ñëw suñu école pour ñu tàggat Mbumba di dëkk bu nekk ca bët gànnaar di eh, war a daloo tey nag jëwriñ ci ñu dénk wàllu tourisme Youssou Ndour ah, mu fay yëkkati daanaka eh, kàddoom jëm ci gën a eh, xool itam nak la ñuy mën a suqalee diwaan boobe moom njiitu Super Étoile ñu doon ko xaaraat ci mu jëlaat micro bi fas na ko yéene nag ca Mbumba ànd ko ak orchestre am fii ñu toll ñuy waxee ña nga ca wàccaay ga ca Mbumba la ñuy des sax ndax gis nañ ne dëkk la boo xam ne ci wàllu wér-gu-yaram faju fa jafe lool maanaam lu yombul la ci askan wa fa dëkkee loolu nag euh, tax na ba ñu ngi ci sàkku ndimbal ci nu mu gën a gaawee ndax paj dafa bokk euh, ci li am solo ci wàllu wér-gu-yaramu nit ki euh, Mor ma ak Jibilaay Diop ñoo ci def reportage bi ànd ko ak Awa Signaté fii ci Mbumba faju bi nekk na fi lu jafe population bi di ko xarloo ndax benn bërëbu fajukaay rek la ñu am muy poste de santé bi nit ñi dañuy jóge fu nekk ci dëkk yi ko wër ngir ñoo faju si. amuñu case de santé benn ñaareel bi tamit. dëkk bi dafa sori ak ñun parce que fii distance deux à trois kilomètres beneen dëkk bi tamit noonu la euh, toujours bu ñu amee malaat balaa muy egg si fekk day sonn même su fekkee si biir nga am pour dox bi dafa sori benn ñaareel bi bu ñu amee ay femmes yi nga xam ne femme enceinte ci yoon bi yéeg def ko sareet du yoon parce que sareet yoon bi neexul loolu benn la ñaareel bi tamit su fekkee guddi lay jógee foofu tamit pour egg si ay problème la lu si gën a bëri sax jigéen ci yoon bi la ñuy wëssin waaye du lépp ndax agent de santé yi tamit ñu ngi naqarlu ci condition yi ñuy liggéeyee. parce que boo seetee ba ci biir weer bu nekk daana am fanweer wala fanweer ak juróom ba fukk jigéen ñu ñëw accoucher ci dispensaire bi mais nag ci biir accouchement bu am na ñenn ñi nga xam ne nag daanu ñëw mais am na ñeen ñi nga xam ne dina am jafe-jafe pour egg ci dispensaire bi lan mooy jafe-jafe mooy fi ñu dëkk dafa sore mën na 30 kilomètres. ñun fii district bi amaguñu ambulance. jafe-jafe mooy jafe-jafe yoo xam ne nit yi lañ leen di bindal ordonnance fekk amuñu ko fi dañ leen di wax ci pharmacie yëpp lu ñu xam nga pharmacie bu toogee amul paracetamol parfois duñu am paracetamol fer amul cycline xam nga loolu moo gën a mën a bëri ci feebar yi. garab yi dañuy def commande distribué parfois dina rawante bi par semaine wala deux semaines fekk amuñu ay garab boo xoolee sama pharmacien bi da gis dafa vide. fan yi nag mun nañ ne waa Mumba ñi ngi ci seen olala ndax ab consultation gratuite lañ fi amal ñii di festival à Sayel ak partenariat bi ñu amal ak UFR santé bu université Gaston Berger bu Saint-Louis. yoon la ci suñu liggéey ndax UFR santé euh, bu université Gaston Berger dafa bëgg toujours di dimbale système de santé bi ci euh, région bi ñuy wax région nord euh, maanaam lépp li nga xam ni. Euh, formation la jëm ci personnel de santé bi ak lépp li nga xam ne jàppale la jëm ci population bi. amul benn jafe-jafe ñu ngi consulter ci suba ba léegi mën ngeen wër euh, collègues yi fi nekk ngeen euh, gis ni ñuy liggéeyee amuñu benn jafe-jafe ci suba ba léegi. initiative bi nag population bu mbaa ñu ngi koy rafetlu. waaye nag ab diir rekk ñu delluwaat ci ni ñu meloon moo tax ñu ngi ñaax autorité yi ñu bàyyi leen xel. sénégalais lambda bi leen TFM tànnal tey Abdoul Aziz job lay wuyoo moom nag euh, ku yàlla may la euh, ci wàllu xarala ndax bari na ay xeeti machine yoo xam ni euh, ci tubaab ya lañ ko gënoon ràññee ci nañ koy liggéey waaye moom ci xam-xamam ci lu mu jàngul da koy def ba boo ko gisee sax du wute dara ak ni nga xam ne noonee la ko tubaab bi defee moom Abdoul Aziz Diop moom nag ci fanweeri at ak ñeent la toll si la gën nañoo xamale ak moom ak Ababacar Camara maquette bi ñuy gis di représenté usine ICS bu Mboro xale su góor si moo ko defal lii nag jàng ko fenn te moo waral jamono ji muy liggéey ci usine boobe ba mu nga defaree maquette bi après yóbbu ko usine présenté leen ko bañ ko xoolee ñu yóbbu dem xool grandeur bi ñu gis que ni amul benn différence sur les détails extra extra ñuy xool amul benn différence donc c'est c'est net quoi yàlla mi dara tawul bo jour ba ñuy def seen benn vœu meilleur vœu ak Djibril Ngom mi doog ñëw foofu ci lañ ma fekk fi benn huit heures fekk maa ngi tëdd dañ ma yeesi ne ma jógal nga ñëw exposé parce que directure bi dafay ñëw tey di jublu ngoom ñëw ba mu ñëwee mu ne kii defar lii depuis trois ans maa ngi suivre gis naan ku bëgg stage ku bëgg mi def la donc yéen fi nekk war na ko bàyyi muy dem keneen di ko jël di ko jariñoo te mu nekk sénégalais nekk fi nekk xaleel wax li may ñaan mooy ngeen jël ko ngeen xool ngeen yokkee xam-xamam mu mën a xool mu réussite bon yàlla def foofu la sama dugg ci usine bi foofu la jaree. fii nag nekkuñu ci benn cabine technique bu ICS mais si benn nekk ci këru Abdoul Aziz Diop la lii mu toog nii nag di ab machine de commande te moom moo ko defar. jàng ma ko fenn damay xool rek dem kër ga xalaat ci bii nga si bi toog nii pare na depuis un an 2011 laa concevoir ba léegi mi fi génn kër gi. yeneen réalisation yu Abdoul Aziz defar muy camion yu ndaw yii niroog loolu ak ya nekk ci usine bi muy liggéeyee su koy defar nag ak xaalisam lay jëndee matériel bi te léeg sax li ci ëpp matériel venant lay doon. chaque fin du mois su ma fayoo marché lay dem wala mu dugg ci fu ma war a dem ma dem fa xool li may soxla parce que déjà damay am projet ma xam ne am naa projet mais finance ak matériaux parce que li may gis yëpp ci presque Thiès laa ko jëndee. marchandise parfois ma dem ci kenkaari aussi xool li nga xam dama koy soxla ci machine bi ma jënd ko foofu mais bii ngay seen ni environ comme machine bi ngay seen ni marion bi dragline bi su ma fenul 480 000 def naa ko ci. doomu Mboro bi nag ca école primaire la yamale jàngam te defula benn formation technique teg ci nee na amul dara lu muy ñee ñii di nga xamante ne ñoo génn ci école polytechnique yi ak yeneen i ingénieur. am ñu fa nekk ñu xam ne sax day ñëw parfois ma yow. ñu li ngay def ñun duñ ko def boo fa ñëwoon sax xëy na yaa ci sutu yooyu ma ne ah yàlla moo dogal loolu yàlla moo dogal loolu xëy na yéen ngi foofu mais man ma façon man maa ngi leen siiwul man xëy na côté sama niveau étude la rek xëy na am na yoo xam dama koy manqué mais bu doon concours la ma teg xëy na mën na ci gis ay ay performance tey jii nag li ko gën a soxal mooy am ndimbal ngir mën a yokk xam-xamam ba mën koo bokk ak askanu Sénégal bi yëpp. billaay bu ñu jógee ci euh, sénégalais lambda boobu Abdou Aziz Diop euh, dañuy dikk wax nag ci ADI moom mooy agence de l'informatique de l'État euh, ñu benn kuréel la goo xam ne moom la ñu dénk lépp lu aju ci wàllu informatique ci wàllu état te mu nekk ci kilifteefu secrétaire général bu présidence de la république structure la boo xam ni nag dañ ko dénk lépp lu jëm ci saytu bu baax doxaliinu état bi ci wàllu liggéeykat yi ci wàllu salaire yi lu ci nekk ñu saytu ko ba loo xam ne lu ñoŋal état bi la Daniel Diouf ak Alioune Diagne def nañu ci gëstu bi nga xam ne moo ñu ciy gën a gindi ñu teewlu ko. kuréel gi ñu duppee ADIE di agence de l'informatique de l'État non ko sanc ci atum 2004 yeneen i kuréel jiitu woon ko fii li ci mel ni bureau organisation et méthode délégation à l'informatique ak direction informatique de l'État agence bi nag am li ko tax a jóg. li ko tax a jóg nag mooy euh, fexe ba service administration yépp mun di jokkaloo ah di jaar ci buumu xarala yi ah donc euh, aussi euh, li ko tax a jóg mooy aussi pour euh, citoyens yi lu mel ni par exemple bu ñu topp toppatoo ay seeni ay këyit yooyu ci ci service administration yi ñu dugal donc xarala yu bees yi pour que ñu ñu gën a mun a jot ci seen kii yooyu service yooyu ci anam yu gën a yu gën a yu gën a yomb. ci kaw loolu liggéeyam niroog li fi opérateur yi di def jëmale ko ci askan wi waaye moom ADIE di ko jëmale ci administration bi ci yeneen i anam. moom moo leen di jox téléphone dinañ mën a jokkoo seen biir di téléphone te duñu fay dara ah donc moo leen di jox ay ordinateur nest donc loolu day tax euh, téléphone bi ñuy téléphonte seen biir te duñu fay day tax ku euh, téléphone bi wàññeeku. aussi beneen exemple boo xam ne bii mooy lu ñuy woy visioconférence mooy loo xam ne lii par exemple ku mel nu ministre par exemple mun na toog fii ci dakaar am ay réunion yoo xam ne daf koy amal ñoo xam ne ñi dañu nekk ci Sénégal yëpp ci région yëpp par exemple ñu ne gouverneur bu nekk yow da ngay toog sa région fi nga toog nga woo say collaborateurs ah après yéen ngeen di wax ak ministre bi ñu nekk Kolda nekk Ziguinchor nekk Kaolack nekk feneen ak feneen ñëpp ñoom ñëpp ñu nekk ci benn réunion boo xam ne ñoom ñëpp dañuy waxante di gisante ah tëral la ñuy tëral te kenn du ci bougé. doxalin gi mu wund yi lii di càmbaru personnel administration bi ñu fi tàmbali ñu duppee ko audit physique biométrique ndaw ñi di ci liggéey ñëpp di ay militaire ñoo ngi ci taamu militaire yi parce que euh, loolu ñu jëlee enquête boobu ñu jëlee ci ci gox-goxaan yi. ci euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéeyee liggéeyal état bi dafa nekk loo nga xamante ni lu sensible la du ku nekk lan ko mën a jox looloo tax ñu taamu ci ay militaire gox-goxaan bu nekk dinañ xam euh, ñiy liggéeyal état bi ak ñi dul liggéeyal état bi dafa am ñoo xamante ni seeni mbir dafa leer am ñoo xamante ni seen i mbir leeragul. agence de l'informatique de l'État mi ngi bokk ci administration bi nga xam ni secrétariat général bu présidence de la république moo ko yilif. ADIE moom nag Xasum Wan Xasum Wan moom mooy euh, directeur général bi moom la ñu fas yéene recevoir euh, gannaaw li nga xam ne mooy reportage bi dinañ ci gën a am ay leeral itam yoo xam ne moom moo ñu ko fas yéene dénk monsieur Wan ñu ngi lay nuyu. Pape Ngagne maa ngi lay fay. Euh, monsieur Wan am na nu ñu ko nu ñu ko leeralee léegi waaye yaakaar naa ni yow mi nga xam ne tey yaa nekk ci bopp bi mm-hmm. euh, mën nga ñu ci defal beneen définition buy gën a leer ci lan moo ko tax a jóg. ok maa ngi lay gërëm Pape Ngagne di la di gërëm TFM ci opportunité bi ñu ma jox pour euh, xamal askan bi euh, liggéey bi nga xam ne moom la ñu président Macky Sall am confiance confié ñu dama gëm ne te loolu tamit wax nañ ko mooy que ne ku ci nekk ci lañ la dénk. boo ci defee résultat ak tamit boo ci communiqué xëy na ëllëg askan bi lu ñu wax ne gouvernement Macky Sall communiqué wu ñu euh, wala euh, génne wu ñu résultat ci tel domaine euh, donc vraiment ci exigence bonne gouvernance il faut ñu xamal askan bi li nga xam ne moom la ñuy liggéey donc comme ni ko reportage bi génnee agence ADIE agence de l'informatique de l'État mooy agence bi nga xam ne ñooy exécuter politique informatisation bi président de la République définir loolu mooy rôlu agence de l'informatique de boo ko saytoo mooy euh, lépp luy informatique ci état bi normalement ñun war nañ ci am lu ñu ci wax war na am lu ñu ci participer mhm. parce que projet caractère transversal yi nga xam ne day intervenir ci ministère yu bëri euh, ñun ñoo koy mëne projet yi nga xam ne aussi ministère yi am seen service informatique te ci dañu war a liggéey ak ñoom lëkkaloog ñoom ba nga xam ne euh, à terme dinañu am lu ñuy wax système d'information bu cohérent mhm. waaw waaw loolu daal mooy en en un mot le rôle principal de l'agence de l'informatique de l'État. waaw mais kon bu ñu la déggee bu baax lu jëm ci audit physique ak biométrie bi nga xam ne ñu ngi ko doon dégg loolu ci seen loxo la nekkoon. waaw loolu dafa di benn liggéey bu am solo bi nga xam ne dañ ko def en coordination avec ministère de la fonction publique c'est-à-dire audit bi dañ ko organiser d'une certaine manière mooy premier ministre mooy président comité pilotage bi ministre fonction mooy président comité technique. man mi maay directeur général et nekk secrétaire permanent euh, bu agence bi nga xam ne mooy mooy dérouler action bi et puis y a aussi gouverneurs yi ce qu'on appelle les comités opérationnels régionaux euh, yi nga xam ne gouverneurs yi ak chef d'équipe yi donc euh, liggéey audit bi vraiment c'est un travail d'ensemble bi nga xam ne ñëpp def nañ ko mais ñun donc dañu assurer rôle secrétariat permanent bi nga xam ne ñoo coordonné daanaka euh, liggéey bi ci terrain bi ak euh, ak gouverneur yeeg yooyu. Mhm. donc c'est un projet vraiment bi nga xam ne balaa ma ciy wax dara sax damay d'abord remercier euh, ñi ci liggéey yëpp en commençant aussi par chef d'équipe yi ak ci nekk ci équipe yi nga xam ne ils ont fait un excellent travail. Mhm. dafa di liggéey bi nga xam ne on l'a fait et on a eu des résultats dans le délai. lan lan lañ ci lan ngeen ci jublu woon. waaw li liñ ci jublu lu lu simple la daanaka daf mel ni nga nekk borom kër. nga ne man ñi may liggéeyloo fukki nit la waaye fi ñuy fay ci payoor bi muy ministère des finance foofu fukki ak ñaari nit la ñuy fay xam nga boobaa boo nekkee njiitu réew war nga mën a ne ah man kat ci li ma xalaat fukki nit yi nga xam ne ñoom ñoom may war a liggéeyloo eh, bu fekkee finance dañuy fay fukki ña ak ñaari nit donc war naa ko saytu donc loolu dafa li li nga xam ne son excellence président Macky Sall depuis bu mu toogee premier conseil des la ko wax. Mm-hmm. càmbar pour xool fonction publique daanaka lan moo fa am ak aussi am na yeneen yuy ñëw yi nga xam ne xëy na dinaa ci ñëwaat. pour mhm. perspective. Euh, mais dama dégg ci reportage bi ko dafa dafa wutu boom bi fi nekkoon muy euh, beneen euh, agent benn kuréel bu fi nekkoon mhm. ndax daf daf fi jóge boom boobu wala naka la naka la demee ndax dañ ko moderniser ak informatique bi wala lan lañ ci def. waaw loolu sax ci reportage bi rek la feeñ en fait dañu buggoon génnee rek évolution bi. Mhm. waaye évolution bi tey agence de l'informatique de l'État moo fi nekk. ay jamono yu passé la BOM nekkoon fii après direction de l' informatique de l' état ak yooyu <laughs> mais tey ci wàllu informatique ci état bi dans agence de l' informatique de l' moo fi nekk di doxal di doxal liggéey bi. d'accord ci wàllu téléphone wi sam mu mel ni am na lu ngeen ci def ndax euh, ku wax informatique wax nga nouvelle technologie. de l'information te ku wax nouvelle technologie de l'information wax nga itam lu jëm ci wàllu jokkoo te ngay xam itam mën na ci am ay pexe. yoo xam ne mën nga ko ci def sa connexion nekk fi sa woote mën a yomb loolu bu amee nag ci état bi itam mën na yaxanal. Euh, wàllu coût téléphone yi loolu itam am na jéego yu ngeen ci def. waaw te loolu tamit important bi nga xam ne euh, am nañ ci ay jéego te incha allah Euh, dinañ def projet bi nga xam ne ci biir état bi nit ñi dinañ mën a jokkonte te suñu réseau lay nekk parce que ADIE cest à nit ñi dinañ mën a jokkonte mooy hmm. nekk lan par exemple ni ma la ko mën a waxee rek mooy daanaka ADIE dafa mel ni opérateur télécommunication comme Orange comme Expresso comme Tigo daanaka bu weesoo Orange xëy na ADIE sax en terme d' infrastructure moo ci tegu ñeneen euh, opérateurs yi doog a ñëw waaye investissement lourd yooyu yëpp état bi def daf ko def pour ngiru utilisation propre d'accord ak aussi nag mbiru e-citoyen daanaka utilisation pour que administration efficace mhm. mais aussi ñu jokkoo ci citoyens yi moderniser leen administration mais quand même duñ ci egg ba ay écoute di ci am di déglu nit ñi daanaka du loolu loolu loolu vraiment du objectif bi loolu loolu du objectif bi objectif bi mooy vraiment déjà économiser ci ci kii yi euh, ci dépenses yi ba pare am aussi efficacité dans l'administration mhm. loolu daal mooy objectif bi choix bi ci militaire yi lan moo ko waral waaw xam nga information yi ñuy manipuler nii ci audit bi dafa denk des informations assez sensibles mhm. yi nga xam ne euh, dafa sensible euh, moo tax équipe yi pluridisciplinaire mais dañ ci bëgg a def militaires yi pour que mu gam am la confidentialité qu'il faut mhm. ak aussi vraiment euh, l'efficacité des résultats d'accord bu ñu dellu si waatee ci audit bi nga xam ni itam defoon na fi benn coow bu bari bari woon na ay coow yu ci amoon ay contentieux yu bari yoo xam ni itam amoon na ci ay dingat mm. naka ngeen ko dundee ak yan saafara ngeen ci war a jël ak yan matuwaay ngeen ci defoon waaw loolu tamit question bu am solo la ndax ma mën ma profiter sax leeral Sénégalais yi que audit bi dafa bëri ay phase cest dire audit bi on l'a commencé depuis octobre mhm. avec benn phase bi nga xam ne phase préparatoire la woon 30 novembre ñu commencé audit sur le terrain mhm. audit boobu jeex na on l'avait prévu sur 40 jours na on a eu juste un retard d'une semaine wala 10 jours maximum donc depuis le 22 janvier le 29 janvier yeneen équipe yi pare nañ audit bi sur le terrain mooy travail boobu jeex na jamono ji nag ñu ngi phase post audit mooy maanaam ñu ngi traité données yi mhm. lu ñu récupéré sur le terrain ñu ngi koy confronté ak fichier carte d'identité nationale yi ñu ngi koy confronté ak fichier solde donc loolu mooy liggéey bi nga xam ne moom bu am solo boobu bu génn ci reportage bi mhm. léegi nag buñ ci jógee dañuy dem dugg ci phase contentieuse mhm. phase contentieuse bi mooy actuellement on a man daanaka ay cent dix mille euh, la ñu ci ci terrain bi après cent onze mille ak yooyu. Mhm. am na dix mille personnes yi nga xam ne dañ nekk situation yi nga xam ne dafa laaj vérification ultérieure. Mhm. léegi nag actuellement ñu ngi koy saisir mhm. comme ça ñu am fichier contentieux yëpp. ci ci machine dina am commission bi nga xam ne dina ci taxaw donc audit bi daal en réalité fin avril la war a jeex. bu ñu paree fin avril jébbal résultat yi président la république nee ko ah liggéey baa ngi nii. xëy na sax dina permettre boobu mu mën a recruter ñeneen parce que gis nañu recrutement fonction publique bi xaw na xat euh, incha allah audit bi dina génnee tamit yeneen mu nekk justice sociale ñi nga xam ne liggéeyul ñu cédé la place ak ñu bëgg a liggéey parce que jeunes yaa ngi bëgg a liggéey perspective yi maanaam Nassiri li ngeen xam ne yéen koy xalaat pour lëkk euh, junj nga ma ci yaatal téléphone bi jokkoo bi lan moo ci des waaw justement parce que liggéey bi nii lu tax sax mu am solo surtout pour euh, mooy dañ ci a jaar aussi moderniser administration bi mhm. am na yu bëri nga xam ne Euh, ça fait yàgg na ngi koy wax waaye actuellement am nañ occasion def ko mooy li ñuy wax e-gouvernement daanaka bu ñu génnee ci lii mun nañ génnee ay carte yi nga xam ne fonctionnaire moom la ñu yor seen am seen payoor carte yooyu mun na nekk carte yi nga xam ne moom la ñuy contrôler ci bâtiment administratif yi xool fonctionnaire yi ñëw ak yu ñëwul bulletin de paie yeeg yooyu mun nañ ko def de manière électronique contrôle xaalis bi ñu envoyé ci que actuellement solde day envoyé xaalis ci banque ne pour fonctionnaire yi la bu ñëpp ñëwul jël seen a xam xam nga yooyu yëpp ay ay ay saytu la yi nga xam ne ci bonne gouvernance il faut ñu ñu saytu ko euh, liggéey donc yooyu yëpp liggéey bi ñu def mooy étape zéro pour aller vers ce qu'on une gouvernance électronique mm-hmm. lu ñuy wax e-gouvernance euh, te loolu incha allah bi dinañ ci war def ay ay jogo yu yu notable. voilà monsieur Khassoum Wane ñu ngi lay gërëm. di sant bu baax. di la jox euh, daje incha allah 20 bu ci yàlla àndee ak Ndeye Fatou ñoo lay doon mbokk yi mu nekkoon xibaar yi marax yi ak TFM.